ñëwoon nañ fi euh, suma jigéen euh, suma rakk Jéema Ndiaye ba honorable député moo fu njëkkoon a ñëw ñun liñ boole woon daje dajale ko mu indi ko ñu appuyer bañ ba affaire bi commencé rek ñu appuyer euh, corps médical appuyer l'administration commencé ko ci xale yi nekkoon université ñu jox leen kaar ñu ñëw jël matériel bu takku indi woon ko fii te itam dañ ñëwaat fii pour gën a yokku parce que euh, xam nañ ne weeru koor bi mu ngi ñëw nit ñi dinañ soxla dara mais aussi que lutte bi war na gën a continuer euh, li nga xam ne moo fi xew Daaru Salaam war na gën a tax ñu gën a am vigilance parce que cas am na fi cas nag su fi amee nag euh, xeex bi day day changé bu yàgg cas amuloon ñu ngi félicité liggéey bu rafet bi ñu fi def mais cas am na ñu ngi encouragé encore nit ñi di di di di di ñaax nag ñaax bi mooy lenn ñun meluñ ñi Dakar meluñ ñi euh, yenn dëkk yi nga xam ne euh, famille yu tuuti la ñun ay famille yu yu bëri lañ soo ñëwee Saalum ñëpp bokk ñëpp ay ñëpp ñëpp ñëpp bokk kër ñi ñooy bokk sax lekk donc loolu daf ma tiital parce que bi nga xamee ne cas bi xew na Daaru Salaam déjà rek euh, ci liñ dégg monsieur le préfet dina ko wax xam na mais presque presque presque soixante-dix personnes déjà laal na ko te loolu ci lu gaaw ci ñaari fan. nañ waxaat population bi ci ne leen dañu war a sol masque ci biti ak ci seen biir kër et ñu fexe ba nga xam ne aussi ni ñuy du vivre en famille ñu jéem a xool ba sellal ko bu baax en tout cas ci loolu ñun indi nañ loo xam ne man ay raxasukaay rek kër gu nekk ci biir Nioro konte nañ ko ay junneeg dara la indi nañ ñaari junne jumtuwaay pour raxasu. indi nañ également lu ni mel ci eau de javel indi nañ ko ci ci ci gel indi nañ également loo xam ne dinañ mën a xool ci centre de santé yëpp yëpp yëpp nit ñi seen température indi nañ ñaar fukki thermoflash indi nañ daal matériel jumtuwaay yoo xam ne pour ñëw dimbale jàppale euh, euh, autorité yi jëkkee ko ci préfet bi mi nga xam ne moom mooy jiite xeex bi ak ci corps médical bi ak ñeneen ñëpp ak euh, imaam yeeg yëpp ñu ñëw indi ko jébbal leen ko pour que euh, li fi xew Daaru mu doon cas boo xam ne ñu ñaan yàlla rek mu yem fi. dellu siwaat na wane cofeelam ci population département de Nioro ndax lii ku ko gis mu ci dolo ci ci tolluwaay ci li nga xam ne moom la indi mu ñu xayma ko ci ay lopp ñaar fukki million ñu tegaat encore ci en terme de produit parce que li mu indi dafa bare soo ko calculer ëpp na fukki produit ak ñeent wala juróom ci loo xam ne indi na ko mu jëm ci li jëm ci poste de santé yi ak li nga xam ne moom la askan wi war a jëfandikoo pour cet ak setal ak li nga xam ne moom la askan wi war a dundee foog naa ni lii tey lu ñuy rafetlu la mu tombee nag ak waxtu woo xam ne tey département bi dañoo tiit dañoo jaaxle ndax bokkuñu woon ci pandémie bi mais tey am nañ cas boo xam ne mooy cas suspect boo xam ne wàll na lu ëpp juróom-ñaar fukki nit ak ñaar bon loolu jar naa tiit ñaan nit ñi aussi ñu toog ci seen kër yi wàññi jaabante bi wàññi dox bi ndax loolu lañ digle ñaan aussi nit ñi li nga xam ne ñu ngi ko digle muy koo gis koo xam ne jóge na feneen ñëw te bokkul ci commune bi nga nekk nga dénoncé ko parce que loolu ayul ki nga xam ne soo ko fi bàyyee bu toog mën na wàll ay dit yaakaar naa ne wax ni kii ñëw na aayul te préfet wax na ko léegi am na ñoo xam ne ñu ngi koy woo ñu ngi ciy ñaax ñeneen ñëpp vraiment ñu gën a góorgóorlu taxaw benn bii ñëw suñ ci taxawee xar ci suñ tànk tubéy mën na fee yem. ñu ngi bég lool ci teew bi nga xam ne teew ngeen fi ndax du peewu jàmm balaa bii nga xam ne tey moo tax fii tey lépp daje fii tey ñu ngi ñaan yàlla emale ko fi yàlla jeexal ko fi ñu ngi nuyu préfet bu baax di ko gërëm ci taxawaay mi nga xam liggéey bi nga xam ne mu ngi koy liggéey ci département bi. guddee ba ci nelaw ñu ko ci sante bu baax ndax li muy def yow askan la koy defal deuxièmement ñu ngi gërëm di ma marba ku ne xam na ni dimba li mu indi c'est pas la première fois mu indi ko yag na ko fi indi askanu ñor ak li wa département ñor yëpp xam nañ ne ma marba taxaw am rafet na ci fi ci dimbal kon donc kon ñu ko ci di sante di ko rafetlu di gërëm bu baax ji Mamar Ba di nga xam ne moom honorable député moo ko accompagné Ba ak kilifa yi nga xamne ño nek ñoro muy adjoint maire ak euh, kilifa diine yi ñu ñewon di réceptionner dom bu am solo bo xamne ne monsieur Ba di Mamat moko indi jaglal ko askanu ñoro mu nek lo xamne pour ñun dafa di nimbal lo xamne sax day gëna a tax ñu mëna taxawu ñi nga xamne depuis demb dañ leen téré pour ko ñu génne seen dëkk ñi ñi téré leen ñu génne seen commune muy dëkk bu ñu woyé Medina tiekene bokku ci commune Darou salam ñu ne leen bu kenn génnati si biir village bi jëm beneen village bu fekkee ne Touba kenn la bu dee waa daru Salaam ñu ne bu kenn génne seen commune moom dem beneen commune te nit ki boo ko tënkee si loolu foog nga joxal li nga xam ne moom la ñu uti di jënd di jaay moo tax foog ñu taxawal leen te lii gi mamat indi nii dina tax loolu gën a yomb mu nekk également dimbal bu am solo boo xam ne bu dul sax askan bi leneen li dafa war a jëm si bërëbu liggéeyukaay yi parce que si don yi am na si ay thermoflash maanaam li nga xam ne si diir bu gàtt ñu xool ndax kii yaram bi dafa tàng wala tàngool ñu xool également ne am na ay masques ko yoo xam ne personnel de santé bi dañ ko soxla parce que dem rek maa ngi doon waxtaan nax ki nga xam ne moom lañ dénk SUTSAS muy syndicat bi ngànk kenn si kuréelu liggéeykaay yi pour que mu eggee woon ma li nga xam ne ñoom lool lañ doon soxla mu ñu gën leen gunge. ngir Arlen, len ñu am ay masque am ay yenen jumtu kay yo xamne bu feebar dikkee du leen gawa dal donc yoyu bu ko jëm indee li war jëm si askan bi li war jëm si faj ñi faj lu am solo la te dafa nek également une réponse pertinente par rapport à li nga xamne borom réew mi président la république loolu la ñaan ku nek pour ku nek duggal xam si xex bi te mom bala li ñi nga xamne ñom la yalla dénk ay responsabilité te cosaanoo fi señora amna am na jotone def mom mu ñew gëna doli également si li fi jotoon am donc ñu ngi ko si gërëm di ko sant